je ne trouve pas normal mu départ mhm. parce que Aliou Cissé ay hiérarchie kon la nekk di respecté man yàgg naa ne Aliou Cissé dafa gëm hiérarchie. bi mooy Jacob est le titulaire Jacob temps yi entraîné loon dafa amoon ay velléité de départ Galatasaray mu xaw a. waaw waaw yëngu loolu mooy contexte bu ja euh, kee. te kon deuxième titularisation contre Gabon moo démarré. Mhm. dugal première sélection. après beneen mu xaar si banc bi. la nouvelle recrue elle a mm-hmm. il joue son club régulièrement. Mm-hmm. marque na cinq buts ses défenseur. Mm-hmm. juste à ah, Binko convoqué but éliminatoire Ligue des champions. il a ah. tiré son épingle du jeu ah avec c'est vrai de nature. de mm-hmm. nature day am trois centraux ak piston mm-hmm. piston mooy ki nga xam faux latéral en même temps militaire en même temps attaquant da ngay dem di ñëw ba pare di mm-hmm. bloqué waale en même temps couloir bi li tax ma wax la loolu moom mooy Aliou dafa gëm ay boo nekkee un néophyte néophyte mooy nouveau né da ngay ñëw di ronger sa frein di ronger di xaar ba cadre yi wala ña fa yàgg ñi deko ne nga doo koy dugg li tax mu def Jacob xaarloo ko dugal pourtant baptême de feu Habib Diarra xaarul joueurs yi en général bu ñu jógee championnat yi gën a dimensionné du ñu leen xaarloo. Mhm. dañuy ñëw lancer leen dans le bain directement. parce que en défense on aura Kalidou Koulibaly c' est le capitaine c' est l'inamovible nga am si góol bi Edouard Mendy. nga am entre ñi ngi naan Ablaye Seck Seck ak Habib Diallo ñu xëccoo lool c' pas sûr. Mhm. ak ñaxate te mu nekk Lyon Moussa ñaxate. Mm. défense baa ngi noonu léegi trois parce que gis nga bu match bi desee 3 jours 2 jours yu njëkk yi day monter schéma am. Mhm. foofu la ñuy xoolee équipe probable. léegi dina am 6 à 8 postes yu nga xam ne dañ koy xam. Mhm. léegi day am ñaari postes près yi nga xam mooy probabilité boobu la ñuy génnee di dugal. dooy gis des fois ngay seetaan yenn télé ñu ne classement probable teg seen équipe type jël ñaari poste def ko entre dëgal kenn def ko ñu def kenn ki entre parenthèse ñoom ñaari ñooy def baloté mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. léegi nag dernier jour yi mooy démb loolu décrassage la tudd da ngeen di génnee li ngeen entraîné ngeen ñëw dans match jour bi beneen jour bi tudd genre délassement maanaam da ngeen di génnee tam li ngeen doon joué loolu dernier beneen jour bi pour voyager directement am na ñoo xam ne bu ñu paree match enchaînement 30 kon bu ñu paree 30 minutes après dañu war entraîner waat génnee match bi voyager le lendemain ñu entraîner waat mettre en place léegi milieu terrain bi li tax man la Pape Gueye Pape Gueye si Coupe d'Afrique moo newoon suñu meilleur élément mhm. yeneen match yi dafa blessé woon moo tax ñëwul amical yi fi jot a joué ak éliminatoire moo tax ñëwul kon titulaire en puissance la ak Gana Gueye indi dafa indi satisfaction bi Pape Gueye ma manqué we moo tax man ma boole ko si mhm. léegi entre Pape Matar Sarr ak Lamine Camara tamit xaw a absenté kon mën a nekk ñoom ñett mhm. Pape Matar Sarr Gana Gueye kii yow yaay japp ne jeu bi do am animation mais Aliou ci xalam mom non noonu la joué Aliou Cissé soxla l'efficacité le joué mais Sénégal fi jeu fluide fluide ba nga naan bo defee li du def li peut-être ñun ñi si biti ak observateur ñoy xalat lool mais Aliou mom lepp lu muy teg c'est pour am résultat mais mhm. je vous rafet moom. ce qui est normal Je vous rafet. non mën nga que euh, prôné je vous rafet ba avoir am résultat. club mhm. daf koy def Guardiola daf koy def. Mhm. alors Cissé pourquoi mënu ko def. Aliou ah, c'est un sélectionneur. non non il n'est pas il n'est pas un entraîneur de tous les jours. kan mooy entraîneur Espagne. non non attends. de La Fuente. depuis quand il est de La Fuente depuis quand il est avec ses joueurs. non xam nga depuis. depuis quand il est avec ses joueurs c'est depuis quand il est avec ses joueurs. mo gëna yag de La Fuente de de. de La Fuente quand la ñëw. Ah, attends non Espagne ñoo am ah. adepte du beau jeu. Ah, buñ ko comparé. waaw buñ ko comparé du question depuis quand la fi nekk Aliou Cissé <laughs> mooy sélectionneur bi gën a yàgg Afrique jamono ji. Mm-hmm. kon bu ñu wax depuis quand la fi nekk. Aliou Cissé boo gën a yàgg kooku. Mm-hmm. Mm-hmm. kon moom waroon na mën a huiler équipe bi. Aliou Cissé huiler équipe bi quoi day tâtonner. tâtonnement bi moom mooy nga dem huit ans huit ans <laughs> Aliou Cissé 2015 la fi nekk on est normal nga dem nga dem defi sept ans. surtout di que Aliou Cissé day tâtonner ça. Aliou Cissé day tâtonner Aliou Cissé instant yow boo demee ba toog tey naan Jackson a war départ kii war départ mooy Aliou Cissé amul équipe. non c'est pas C'est Aliou mais équipe performance. les joueurs qui sont coach principal les joueurs qui sont performants équipe entraîneur équipe pendant un deux ans trois ans ces joueurs n'avancent pas. non attendez chaque jour un entraîneur doit avoir l'emballage du choix. mooy say jour laawul fond xam nga ma jox benn exemple man Real Madrid mën naa classé am na équipe type hmm. wax ni ça veut rien dire Carvajal ñëpp xam nañ moo nekk côté droit hmm. Ferland Mendy ñëpp xam nañ moo nekk côté gauche hmm. xaaral xaaral rek Sénégal Sénégal ñëpp xam nañ ni Kalidou Koulibaly ñaxam naa Sénégal 2002 2002 léegi damay jël benn exemple 2002 Sénégal doxoon talent bi nga amoon bi nga am ni amoon 2002 lan mooy talent bi amoon ni ñii lan lañ def loolu jël naa talent bi nga dama ne dañ dem si pool bi leen toog. xoolal 2017 ay ay ay Mbaye xoolal talent bi nga am actuellement. amul ko 2017 ay Sadio sa Diao. Kanté gënul ay Salif Diao. Kanté équipe bi ñoo bokk El Hadj Diouf tamit ñu gars yi gënuñu ko ay Fadiga gars yi gënuñu ko ay nañu bàyyi ay talent bi talent bee. c'est vrai ah Fadiga kan moo gën a ay seetaan xam nga yaa yaa ngi nekk sama temps wax nga dama la seetaan nga wax fii benn waaye xam nga ban ne ko képp ku fi jaar on retient ce qui gagne non attends man waxuma waxuma waxuma Aliou Cissé gañewul de. déedéet dama doon Aliou Cissé bul basé aussi moom si fluidité jeu. yow yaa bu contesté loolu man la Aliou Cissé résultat lay xool moom boo waxee ni ni naan ay les résultats parlent pour lui. fenn laa d'accord si tu dis que Aliou Cissé en train de tâtonner. non Aliou Cissé il tâtonne depuis. foofu laa d'accord Aliou Cissé Aliou Cissé coupe d'Afrique bi. xam nga tâtonner par moment laa la ko waxee. c'est mal connaître ce qu'il fait. waay Aliou Cissé Aliou Cissé tojul fenn. Aliou Cissé mosul coaché fenn Sénégal rek la nekk ngaan c'est mal kon nag quand même nag am na yi nga xamante ni bëgg débat Aliou Cissé moom kenn mënut a wax rek Aliou Cissé deux mille quinze c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du football du Sénégal xam nga Aliou Cissé ak sélectionneur sélectionneur sélectionneur pas entraîneur dama ne entraîneur kii mosul coaché benn club mosul coaché benn club dama ne Aliou Cissé c'est le meilleur mosul coaché benn club Aliou Cissé ëpp défaite si ñi jaar c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire du football du Sénégal c'est le meilleur waaw léegi nañ Aliou Cissé dinañ ci ñëw c'est une parenthèse nañ delluwaat ci suñu onze probable dañ ci ñëw dañuy ñëw ci statistique dañuy ñëw ci statistique bi dañuy ñëw ci statistique bi. kii dafa gën a laaj ko nañ dugg ci 11 eh, probable ñu wat ci 11 probable man maa ngi fa woon de waaw dal nañ ci dellu wa maa ngi fa woon de gis nga 11 probable bi limu waxee alu Sène mosuma ko bañal dara yow yaa bu contesté li ma mais mosuma ko bañal dara bilaay di ngeen ci il a tellement de tâtonné Abdoulaye yow alu ci il tâtonne que tu le veuilles ou non il tapone tapone moom moy li ngay def xamoko tay da ngay alu ci déparé wul 4 3 3 mais ci tatone ma boobu ci le réussir limu réussir kan la réussir ay waay dinañ ñëw ci Aliou Sène 3 5 2 gagné wul il a gagné la 4 way gagné wul 4 ak 3 5 2 Sénégal certes pendant 60 ans kon may rek ñun Sénégal limu limu tax duñu avancer que gagné na lii rek léegi defal loo neex loolu lay niru quoi léegi defal loo neex waa régie ma ñaan leen kon ngeen may ñu euh, les deux conférences de presse ñu dugg directement ci Aliou Cissé parce que Serigne Mbaye Diop nangul wax ci onze probable ah, man maa ngi wax de waaw mais bu ko tontu kon jeex na eggale bàyyi Aliou Cissé dinañ ci dugg moom mooy Aliou Cissé système bi ñëpp di ko décrier moom mënu ko sax pour expliquer moom il ne peut même pas l'expliquer dañ dellu ci onze bi 11 bi mom moy sama boy bi sax gaay dañ koy critiquer de tout le temps. kan ci Ismaïla Sarr. Mhm. mais Ismaïla Sarr c'est le lieutenant de Sadio Mané. Mhm. Ismaïla Sarr bu fi Sadio Mané nekul moy téy équipe bi ni Abdoulaye Ba d'accord non man waxuma pour mu d'accord accord damay pour. Ismaïla Sarr match bi passé il a été il a été nul. match bi passé contre Congo match bi contre Congo sans sans Sadio Mané Ismaïla Sarr n'a pas pris ses responsabilités. lan moy jël ses responsabilités c'est presque euh? moy homme du match nga ni jëlul benn dara presque la attendez. contre Congo Ismaïla Sarr coupe du monde moy meilleur élément Sénégal Coupe d'Afrique bi passé mooy meilleur meilleur élément Sénégal xam nga gars yi Ismaïla Sarr dañ koy jugé si quelques prestations. mais jugé wuñ ko si carrière am équipe nationale. Ismaïla Sarr bi muy titulaire Sénégal génération foot la nek. dama de ko rek de ko rek de pas vécu de pas vécu en équipe nationale. lan lan mooy vécu de pas talent Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr yaa ngi am amna concurrent mom mo leen tek ba. banc. nañ fi Iliman Ndiaye dafa décevoir ñu tégat ko ba. arrêté leen di dénigrer ay nit ni di pour dénigrer Ismaïla Sarr indi nañ fi mode concurrent bu nek mu tek leen ba. <coughs> kon yooyu c'est mal connaître la le gars Ismaïla mos fi xam nga nit liñ naan ay yow buñ la singalee Sénégal la lay singalee ñu la singalee il faut nga dugal 10 bii ñu doogay nangu si benn match mais loo def ñu ni baaxul Ismaïla Sarr bi ñuy dajeeg Équateur am problème sax moo dugal pelanti pour te montrer bu fi Sadio Mané nekkul mooy téye équipe bi Ismaïla Sarr ngi doogay changer club ñu bëgg ko juger si ñaari match yi am remplaçant dugg mais les daje nañ fii Mangane di match la dafa raté benn occasion bu graaw rek ñu bëgg tilimal match bi pourtant y a des jours yi nga xamante occasion moom moo ñu naroon éliminé non xam nga occasion boobu mu raté xam nga a. non man je ne reconnais rien man je juge les prestations d'Ismaïla Sarr. je te suñu sañoon nekk les meilleurs. non man amul suma de suñu deful dara génn kay yéen jugement yi ngay def nii man. mais dama ne la la ñëpp war na reconnaître actuellement Ismaïla Sarr. Sénégal am na ñu nga xam def dara ñu ngi leen di am na ñu fi def dara te ñu ah, la fi Fatick. non y en a qui sont performants dans le l'équipe nationale. même ah, Habib Diallo bi muy wax Habib Diallo bi muy wax Habib Diallo bi muy wax en équipe nationale actuellement. sincèrement en équipe nationale. Ismaïla Sarr li mu ñuy wan nii. mën na lu ko gën. non attends loolu c'est beneen débat la mais ndax match yi baax na laay wax. man yi ngay wax nii man yi ngay waxu mbedd la. match yu bon la ngay wax nii waxu mbedd la. match yu bon ah, la si quand même. match yu bon la xaaral xaaral tey mi ngi mel ne nga ni ma Mbappé deful dara France li muy def ni mën na def lu ko mais képp koo gis si àddina même bu gagné ballon d'or mën na def lu ko qu'est-ce qu'il a fait contre Mauritanie xaaral léegi léegi defal ndànk Habib Diallo bi nga doon dingat léegi léegi Habib Diallo quatre derniers matchs Sénégal trois bi yow moo ko ngeen bëgg critiquer moom it contre RDC ku dugal du moom mhm. avant RDC contre Côte d'Ivoire bi ngay toog ku dugal waaye arrêté leen nag yéen tam yéen da ngeen di critiquer yéen dem seetaani match yi Habib Diallo xaar xaar ma Habib Diallo sur le tard la titulaire dafa nekkoon victime ay ñoom bu laay jaaw yooyu coupe du monde sax yóbbu wuñ ko il a fallu que mon exilé aux Arabie Saoudite nekk titulaire indiscutable si euh, problème Boulaye Dia salaire <coughs> Jackson Jackson actuellement je le vois comme titulaire indiscutable hein. parce que c'est le seul Sénégalais a bougé cinq grands championnats club titulaire. Mm-hmm. te lolu compétitivité pour da war jouer. même bien vrai qu'il n'est pas clinique, mais avec le temps, il le sera. Parce que trois matchs, le G championnat de Bulam. Mm-hmm. ça ça Les parle pour lui il est titulaire indiscutable actuellement à Chelsea même Chelsea def na ay recrutement yu clinquant ah, mais il tient la drague haute à ah. mm-hmm. tous les attaquants y nekk fële ah. tous les attaquants y nekk Chelsea ah. bien vrai que équipe moom rek mooy attaquant de pointe ak ñu Marc Guiu te ko xale la Barça la Armando Borja abale nañ ko. ñeneen ñëpp ay excentré lañ ñu jënd kon boulevard imposé au carrément. man que analyser analyse match technique lay analyser mais li nit ñi di wax si mbedd yi man du ko wax plateau. Mm-hmm. ay de Ismaël Sarr dem allez ngeen les statistique. à part Sadio Mané Gana Gueye bokk na si ñu ëpp sélection actuellement. kon bu ñu taxaw di singali benn nit daan def fi lii def na fi lii Ismaïla Sarr demal nga xool match yi ñu joué Sénégal Sadio Mané nekk fi yëpp mooy téye match bi. Mhm. man li ma lay wax nii loolu noonu soxlawul ay ndiw nee naag dafa war def lii mais nañ dem Edouard ni war a def lu ëpp li arrêté leen ay dafa war def fii képp koo gis bu defee 10 war a def 15 mais fi mu yem noonu nañ ko nangul ni fii la yem buñ ko Ismaïla Sarr ñi ngi leen teg ba loolu la ne nii mais nga fi indi concurrence yëpp tam ñu naan lay non non Crépin Crépin nekkoon na fi concurrent mu latéral la mujjee mhm. dama lay joxe ay chiffres yi nga xam demal nga vérifier ko mhm. mais la naa conférence de mais mos ko expliquer correctement yaa ngi naan système hybride mu expliquer de Aliou Cissé dafa ni la ma damay def défense la la wax

xam 11 probable c'est probable. c'est pas probable oui. ce qui est sûr moi 18 huit heures ban Aliou c'est moi gagner classement officiel am teg. Mhm. les classements officiels su ko nit ki génnee loolu moi li nga xamanteni ni dem. mais nañu baye di taxaw di tok nan ataaya ba pare di wax luñu neex. Mhm. mais la réalité du terrain entraîneur moo koy tech teg. nañ sélectionneur ak coach. c' différent sélectionneur ay joueurs yu différents horizons lay sélectionné n'importe quel club dajale leen créé benn mayonnaise ci ben deux semaines gelo loolu leen. milieu bi waaw milieu bi ah milieu bi milieu bi nee naa la Gana Gueye laa fa gis Pape kay kii nu mu tuddati booy bi nekk Tottenham. Hmm. Pape Matar Sarr. à défaut Lamine Camara peut-être non gis naa ne du jouer. su fekkoon day jouer entre moo Gana gay kenn dina xaar wala papa gay tam xaar ndax deux derniers matchs yi nekk fi waaw il était pas là waaw mais comme quoi euh, prestation yu mu def période Coupe d'Afrique bi absence am ñu centre compte Côte mhm. d'Ivoire. te début saison bi ma gis muy def real il doit jouer. Mhm. parce que les formes du moment nga war sélectionner nga war jël côté gauche nag dafa waroon essayer booy bi jóge Prague.

entraîneur lu ko neex sa défense sa défense. entraîneur du lu ko neex def de. waa xaaral parce que la. waaw entraîneur du lu ko neex def de. mais sa défense yaa ngi ñëw ci entraîneur. nga ne soit entraîneur bi défense pourtant dama la gardien bi. Edouard Mendy la défense bi yaa Kalidou Koulibaly ak Moussa Niakhaté ñaar yooyu ñooy sortir beneen bi entre Abdou ak Seck ñoo koy xaw a xëccoo. jërëjëf Abdoulaye Seck. jërëjëf droite mooy ki nekk Strasbourg capitaine bi Habib Diarra man loolu laa gis quoi. jërëjëf Serigne Mbaye Diop alors ma jox euh, Pape Mbaye Gore mu wax ma moom li ko métti ci euh, arrivé El Hadj Malick wax na ko nee na sama doom ji xanaa fas yéene ñu ko indi équipe nationale ba pare tëdd joué Pape euh, wax nañu titularisation wu ki nga xamante ne moo di Michael fay donc probablement sa sa doom ji mun na bañ a naka nga gisee ñu indi ko ba pare mu bañ a joué. danoo wax ne bu football collectif la boo xam ne dina dem ba tollu foo xam ne. technique dootul am jom mooy am ak fit moom mooy am <coughs> la preuve année mbay am na a l'époque ñun suñuy jamono ay joueurs yoo xam ne suñu duggul footballu ci match bi dina am ñoo xam ne duñu am fit duñu am fit ñooy ñuy booster équipe bi di ko booster mooy ñi nga xam ñoo ñooñu gisoo leen ñi ngay wax noonu waaw nga xam ne doonuy dugg joueur bi doog a am fit ban jour la Cristiano doon jooy ne lan ma la Ozil. wala kan bu fekkee Real la waaw bu Ozil bu fekkee Real ngay wax waaw. mu ne da koo faciliter ay but yu baree baree. bari Benzema la Benzema la. nee na dafa taxaw nee na moom sax moo ko def star ndax nee na moom moo tax mu mën a dugal but n'importe quelle façon. ak n'importe quelle manière yoo xam ne nee na passe bu nekk tegal na ko. Jéem sax dugal na 900 buts en sa kon dafa am ay joueurs yoo xam ne waroo leen a bàyyi ginnaaw ku ci mel ne Sadio Mané su duggul rek daf lay leer leer yàlla ni am na ñoo xam ne seen tapet day feeñ. <laughs> waaw. feeñ na si dernier match yi mooy. ah dégg nga pile bul soo waxee nu critiqué la. <laughs> waaw wax nga dëgg ndax am na foo dugg léegi am na koo léegi am loo wax ci moom coach mer. <laughs> merul ne. ah kay ah, tamit ni mu waxee kenn doful nag yow tamit. nit ñëpp ay nit nañu.

te tamit gëm na li muy def moom Sadio Mané c'est le patron li muy def da koy def koy def waaw mhm. mais indi piston bu mel ne sama doom ji El Hadj Modou Malick Diouf nga tekk ba muy def fële feu et flamme non mais il faut ñu ah ku soog a ñëw rek doo dugg waxuma loolu de déedéet <laughs> ah non dama la bëgg xamal ne Aliou Cissé nee naa la man si ni ma ko xamee ah. si ni ma ko tàmm éliminé sama doom yëkkati ko dem moom dafa gëm ay hiérarchie boo xam ne kenn mënu ko mooy kan dugal na ci façon waa Famara Diédhiou. non mais Famara Diédhiou père. déedéet y' a pas de. Cardiff la fi demoon Cardiff kii agent libre actuellement sans club la. waaw mu Famara Diédhiou compétitif yi. man maa lay njëkk a yuuxu na ñëw. mais Famara Diédhiou actuellement père ngir yàlla rek. Famara Diédhiou moom. waaw non dañuy wax dëgg rek. Famara Diédhiou moom waaw ñaan quoi waaw dama lay ñaan rek Famara Diédhiou. waaw léegi El Hadj Malick voilà mais Famara Diédhiou moom. Famara Dieng attends mais El Hadj Malick ah. booy la fi cadet équipe am na largement le temps mu dugg installé wu léegi lii day ñëw apprendre le haut niveau côté équipe nationale pour avec le temps Michael Ngor Faye bi muy doog ñëw mais ñëw rek Ablaye Dabo daal di dugg attends mën na ñëw rek dugal ko dama ne est-ce ñëw dugg rek El Hadj Diouf ah, dafa ñëw rek départ dama lay jox exemple dama lay jox am na joueur yi nga dafa ñëw rek départ dafa am ay joueur sélection xam nga Sadio Ma mm. El Hadj Diouf ban mooy première sélection Sénégal benn biri Peter Schnittger moo ko sélection uh-huh. dafa ñëw rek démarrer. Mm-hmm. Fadiga bi ñuy dem yoonu Coupe d'Afrique 2000 mom ak Daf mm-hmm. ak Pape Sar mm-hmm. ñoo foog naa contre Nigéria la fii 0-0 wala xaw contre Cameroun mooy yoonu 2000 bi ñooñ dafa am jour équipe bi lu muy manqué soo ñëwee amu fa da nga war jouer peut-être moom équipe bi Aliou Cissé am na ñu programme bi par hiérarchie Jacob ngor après mom mënuñu ko moo tax man la hiérarchie bi Aliou Cissé da kay topp. jàpp hiérarchie rek ma leen man de. hiérarchie bi maanaam ki mo la raw après ki après kii. ma la wax dama ne. Aliou Cissé day topp hiérarchie Serigne Badio bàyyi ko mu jeexal. mais li ma lay wax dafa bëgg force El Hadj Malick Diop dama force mu ko de dama la man sama la dañuy ko mu li dafa ma la wax dindi. hiérarchie ya ma mag dégg nga. wala maa la fi jiitu ak ah, wala la fi du compétence wax waaw waaw loolu nangu na. compétence. a boobu nangu na. ëpp na booy bi fit. non xam naa man booy bi dama koy seetaan léegi papa ñu jël ki nekk ci ligne bi parce que moom tamit euh, téléspectateurs yi ci lañu bokk dañu bëgg a jël seen onze seen onze probable ko nañ ko dugal te dinañ ko dugal sax booy bee leen ëpp fit dinañ ko dugal nga ne ëpp leen fit loo xam ci booy bi ñu jël téléspectateur bi jël ci onze probable allo salaamaaleykum waaleykum salaam madame waaw sëñ bi nuyu nañ la bienvenue sur le plateau de Café des Sports Merci bien. Si vous me permettez, je peux m'exprimer en français. Bien sûr, vous êtes chez vous. Je vous demanderai juste le nom, le prénom et euh, vous nous appelez d'où Mon nom c'est Moustapha Sissé, j'appelle de Parcelles. Bienvenue Moustapha. Oui, nous vous écoutons par rapport à ce débat. J'espère que vous comprenez quelque chose. Euh, tout à fait. Au fait, je voulais revenir un peu sur euh, l'accès du billet d'entrée au stade. Oui. Vous voyez, quand on compare un peu euh, le budget, le budget, il est beaucoup plus cher, trop. Oui. Concernant le transport, par exemple. Mhm. Parce que le, le transport même coûte plus cher que le billet d'entrée. Mhm. Supposons, imaginez-vous euh, une personne qui paye un billet de 1000 francs mhm. et il fait le transport, le transport qui lui coûte 3000. Et disons 3000, 3400, mais 3400, parce que lorsqu'il prend le terre, il arrive, il arrive à, chose par exemple euh, à, à, à Diamniadio. il emprunte encore le bus ou le tchak-tchak pour se rendre encore au stade. C'est c'est encore des faits. Et moi, par exemple, moi, je suis allé au premier match euh, du contre Congo, le Sénégal-Congo. J'ai quitté chez moi, j'ai emprunté le taxi, je suis arrivé au terre, j'ai emprunté encore le terre, je suis arrivé et vous voyez, ça me, ça me fait un budget. Si moi, j'ai pas au moins 15 000 ou 20 000, je peux pas me rendre ça. Donc, le supporter, par exemple, le supporter, c'est celui qui vient transpirer. Moi, je, moi, je viens d'Abidjan. Hmm. Abidjan, la façon dont on supporte, ça n'a rien à voir avec euh, le truc du Sénégal aujourd'hui à jeu. Je suppose si c'était... Euh, au Léopold à Senghor, par exemple, là, c'était bon. Hmm. Mais le fait qu'il est à radio franchement, c'est, l'accès est vraiment compliqué. Effectivement. L'accès est vraiment compliqué. Et puis, la nourriture vendue là-bas est très chère. Mhm. En plus, hein. mhm. vous voyez, la nourriture vendue est chère. Mhm. Euh, le transport, il est cher. Bon, c'est, vraiment compliqué pour le supporter. Le supporter, c'est celui qui, qui paye 1000 francs Mhm. et il va supporter. Le spectateur, c'est celui qui paye 10 000, qui se donne le luxe. Mhm. Ça, c'est le, ça, c'est le spectateur. Mais le, le spectateur, c'est lui qui se trouve à Diamniadio. Sinon, le supporter, il ne se trouve pas à Diamniadio, il se trouve devant sa télé en train de regarder. Mhm. Vous voyez, donc, c'est, c'est, c'est, c'est un peu ça. Il faut qu'on essaie de revoir un peu le truc. Et puis, j'ai entendu sur le plateau, quelqu'un disait par rapport aux annonces lorsque les matchs doivent finir il faut plus plus de motivation sur les télévisions, sur, les plateaux télé. Il faut essayer d'expliquer pour que les Sénégalais puissent faire le déplacement. Oui. Mais sincèrement, on aime notre équipe nationale et on la supporte, on est prêt à tout pour elle. Et aujourd'hui encore, je serai encore au stade, Inch'Allah. Ah, c'est avec plaisir. Hum, ok, merci à tous les tous ceux qui sont sur le plateau. Je les salue, je salue encore le papa là, qui donne, <laughs> qui, qui, qui, qui, me donne beaucoup de souris ce matin. Et il aime bien son fils Malik Et j'aimerais le voir lui aussi, Pourquoi pas, Malik Merci beaucoup à hein? vous, merci hein? beaucoup encore à vous. Ah merci beaucoup, monsieur Sissé. C'était un plaisir de t'avoir eu au bout de la ligne. J'imagine que vous venez d'Abidjan, comme vous l'avez si bien dit. Ça se voit, ça se sent même dans l'accent. Donc, euh, merci beaucoup de nous appeler. Mm. On, salue tous nos amis de, de la Côte d'Ivoire, mais également de la mm. RDC. Mm. Raphaël, je ne t'oublie pas. Eric Barreau, en français. <laughs> Raphaël. Je te salue toi aussi. Lui, il nous représente en France. Je vois aussi des téléspectateurs de Toulon qui nous saluent. Nous vous saluons tous et merci d'être toujours au rendez-vous. Je rappelle juste que c'est votre édition spéciale Café des Sports. Alors, l'émission euh, d'aujourd'hui, on va parler 100% équipe nationale du Sénégal. Le match aura lieu aujourd'hui à partir de 19h au stade Maître Abdoulaye Wad de Djamniadio. J'espère qu'on sera tous au rendez-vous. Et même si on n'est pas au rendez-vous, j'espère qu'on continuera à supporter, à aimer notre équipe nationale parce qu'on n'a pas plus que cette équipe nationale. Donc, on va tout faire pour les encourager et les féliciter. Donc, merci beaucoup à vous. Nous avons une conférence de presse. très rapidement, papa. Parce qu'on a deux conférences de presse. Moi, à l'UCC, avec le coach, le sélectionneur. Donc, Traoré, voilà. Donc, nous petit, vous jox papa très rapidement mu wax balaa ñu dem conférence de presse je l'ai dit dès maintenant dès maintenant je répète mm-hmm. et je maintiens si Aline Sissé ne fait pas j'ai de de vie, Je vais en exil après lu match. exil wallahi damay dem exil waaw d' accord. kon d' accord damay dem Arabie Saoudite exil. billahi di ko kon damay génn Arabie Saoudite. ñooy ànd mais da nga koy dugal. non non mën koy dugal. da non non Maodo Malick day dugg. non attends loolu ça mooy décidé. waaw Famara Diédhiou fi nekkoon. xeex na ko ba génne ko sa beneen doom waaw léegi indi nañu kii. mi ngi nii di mi ngi est-ce que amul problème ak say doom kon. ah ba kii de amul kum ma na a ne ci équipe bi moo ko mën ñam ko. diw bala nga naan maa ko mën da koy ñam booy bi na trop. ba waaw na ko ñam. mu am temps. mën nañu ba ban temps lu muy toog. papa doo exilé wu soo nar a exilé wu. wallaahi su fekkee tey exilé wu na arrêté si na def lu ko neex bul ni bu yóbbu. waaw bu yóbbu xam nga tey ñaanuma yàlla. ñaanuma yàlla booy bi papa papa ñaanuma yàlla. Eh. te xam nga lan la booy di duggee. su demee ci plateau bi. waaw Sophia ne ma situation match bi moom nanu bëgg ba pour nga wax papa nan lay demee fekk dama analyser woon hmm. duma yàlla duma ti bi nu wax rek may leen Sénégal day door Sadio Mané day dugal diw day dugal diw day dugal exact mais ñoom ñooy sunu baram ne amin sunu baram ne amin wallaay ndeysaan ñu ñëwaat si mu ne ma analyse ma ne ko Sadio Mané day dugal Famara Diédhiou day dugal Ismaïla Sarr day dugal limal ko mu ne ma kon papa kon loolu ñoo ñëpp ñoom dugal ci benn match mooy ba nu demee série penalty yi la. ñoom ñëpp dugal. ñëpp dugal ba ki mu teg place su Famara Diédhiou sax. dafa dugal la mu génnee Famara Diédhiou moo tax ma daanu. daa hmm. classé wu ko. non fi ma ko meree bari na. nañ dem seetaan Aliou Cissé soo classé wul El Hadj Maodo. man dina dem exil man te bés bo exilé eh, man marsé ma ak sama papa kon su ngeen bugul ma dem and ak sama papa fexe ba Aliou Cissé classe élage Malick Diop nañ àndandoo dem sétal conférence de presse laaj la jox ma part damay dem am na ño xamné suma su ma leen ne paatu arabe ci nañ sétal conférence de presse de la canne au, au Maroc effectivement, c'est pratiquement un autre parcours du, combattant après euh, ces éliminatoires qu'on a entamés de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est le continent africain, donc euh, bien sûr que tout le monde a envie que le Sénégal retourne à cette, à cette, à canne-là. Donc nous sommes focus. je J'ai trouvé des joueurs vraiment motivés. On a pu travailler durant deux trois jours pour vraiment mettre en place euh, les choses qu'on veut mettre en place malgré le, temps qui est, très court. Mais comme je l'ai dit, euh, on est prêt, on est prêt. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est resté un petit peu sur notre fin sur le dernier match ici contre, contre la RDC. je crois que tout est réuni aujourd'hui pour retrouver cette efficacité offensive et puis cette solidité défensive pour mieux aborder en réalité ces éliminatoires-là qui sont difficiles. Mais je pense que le Sénégal a les moyens sur six matchs de pouvoir se qualifier à, la prochaine CAN. Bon, la clé du match euh, dépendra de la situation du match. Parce que vous savez, euh, les Sénégalais, c'est sûr qu'ils ont bien préparé le match, nous également. On verra par rapport euh, à la tactique, au plan du match que chaque équipe a mis en place pour pouvoir peut-être déjouer voilà, donc euh, nous attendons parce que la clé du match dépendra de la situation du match. Voilà, nous savons en tout cas que les Sénégalais, les supporters sénégalais seront, seront là pour appuyer leur équipe et également apprécieront cette équipe du Burkina qui est une équipe euh, peut-être pour euh, pas mal de Sénégalais, leur deuxième équipe en Afrique. Oui. ils sont conscients que l'équipe a eu euh, de petites difficultés. Donc, euh, nous pouvons assimiler ça à une traversée du désert. Mais je pense que euh, nous sommes au bout du tunnel parce que les choses vont très bien aujourd'hui. Au sein du groupe, je pense que l'ambiance est bon enfant et ça, c'est important. Voilà, donc on a retrouvé un groupe et je pense qu'on fera de notre mieux. Voilà, c'est-à-dire euh, euh, de ce côté, il n'y a même pas de difficultés nous concernant. Voilà, nous sommes très unis aujourd'hui et chaque joueur, en tout cas, est pressé de pouvoir euh, démarrer ce match. Et <laughs> c'est à l'encadrement maintenant de voir le 11 de départ. Sinon, ils sont tous motivés pour ce match. Comme je l'ai dit, c'est face à une grande équipe et il va falloir montrer quelque chose. Donc euh, nous aurons nos arguments. Et je crois qu'on a envie de faire plaisir à notre, euh, à notre peuple. Mais Sénégal euh, à Burkina, ben, on sait qu'on n'a jamais de matchs faciles. Aujourd'hui, le Sénégal, depuis pas mal de temps, on est l'équipe à battre. Même si on n'est pas le dernier champion d'Afrique, on est l'équipe à battre. Nos matchs ne seront jamais faciles parce qu'on a des joueurs qui font rêver. Personne, tout le monde a envie de jouer contre Sadio et de lui montrer ce qu'ils savent faire. Et je crois qu'aujourd'hui, on est prêt à faire plaisir à notre peuple et à vous faire plaisir. mais là, wax supporters yi nag gars yi war nañu ñëw seetaan si ah. mais nag euh, xam nañ ne métti na xam nañ ne tamit dëkk bi métti na tamit looloo tax xam nga affaire bi du affaire euh, rek stade bi dafa Il y a des problèmes de moyens aussi et je crois que il faudra que ñi ci war waxtaan ñëpp waxtaanee si parce que stade bu mel nii mënoo ko defar te du fesses. ou bien on finit un stade euh, au centre-ville et comme ça que les gens sont plus euh, euh, plus près du stade. Euh, je sais pas, pronostic pour la France pronostic. Gagner. Les premiers matchs, il faut gagner. Après 2-1, 3-1, 4-2, whatever, il faut gagner. Son pronostic, c'est de gagner. C'est notre pronostic également. Donc, gagner, toujours gagner, encore gagner, surtout que c'est les premiers matchs. Donc, avant de donner la parole à mes co-débatteurs sur ce plateau, je prends euh, notre intervenant au bout de la ligne. Après, le Lortan. Allô, salam alaikum.

au bout des micros de, des sports. Donc, moi, je euh, euh, son pronostic il na gagné toujours gagné encore gagné donc il jox lañu un pronostic y a un match y a surtout que ñun ñëpp pas ni Sénégal gagné. alors on a écouté aussi les deux sélectionneurs euh, Abdoulaye Ba déglu nous sélectionneurs yi sélectionné ci a wax nga. L'UCC, ici avec beaucoup de respect a parlé de, du sélectionneur Traoré On a équipe que euh, équipe à craindre là, ne ça sera pas un match facile mais Traoré il respecte aussi beaucoup le Sénégal mais euh, il craint pas le Sénégal et comme on l'a na euh, il va gagner un match de un duel qui va être terrible un duel qui va être vraiment compliqué mais le nañu Sénégal euh, mu mujjee tase Burkina daf ko Sénégal. le nga ñaari parole sélectionneur Waouh les deux entraîneurs <coughs> tu sais que Aliou Mom a beaucoup de respect pour l'équipe euh, du Burkina Faso. Mm. et Aliou tamit Boy, koy xool ci kanamam ak ci communication ci communication <coughs> excuse-moi euh, Abdoulaye euh, de faire si donc je préfère le prendre Bala moo ñëwaat chat après ñu ñu dellu oui salam alaikum bonjour et bienvenue sur ce plateau C'est le noo tudd ak foo ñu woowee. man maay Serge Mendy. man la Serge. ah Serge comment vas-tu il était présent hier Il hein. ngi doon dugg di participer donc dalal ak jàmm Thiès euh, Serge. waaw merci merci. Mhm, da nga bëggoon bokk ci waxtaan bi. waaye gis naa waxtaan bi riche na trop trop. ñu mhm. ngi wax ci équipe nationale. effectivement. Men apet, yepe boge ekip nasyonal bonen se. Alay. Se fwo ka wak tan di riske. Degla. Kote chen, yepe. Mm-hmm. Kwa men, giznan ni wak tan sistem 3-5-2, 4-3-3. Men, san zibliye, gade ni sate piznourke, ni sante aipik an yon si, si se. Mm-hmm. mais dañuy toujours que Sénégal euh, dafa tàmm di rate ay occasion mm-hmm. te loolu xale yee koy def mm-hmm. après dañuy nañu coach bi jàpp ne coach bi moo mënul tout ça mm-hmm. c' est bien vrai que 4-3-3 bi la ñuy am ay occasion mais 3-5-2 bi dinañ am ay occasion tamit mais suñ ko doon concrétiser euh, kenn waxatu ko. Mm-hmm. kenn dootul waxat dara Aliou Cissé. Mm-hmm. mais bii euh, match bi du baptême de feu Aliou Cissé mais baptême de feu euh, kii la. Pape Thiaw Pape Thiaw. oui en tant que adjoint. Mm. man moom maa gën a xaar que Aliou Cissé sax. Mm-hmm. parce que normalement dafa war a nekk benn personne boo xam ne. dina soutenir Aliou Cissé euh, bu baax ci kii bi. ci liggéey bi mhm. waaw Serge euh, papa am na lu mu la bëgg a laaj soo soo paree. waaw d' accord d' def. maa ngi fi rek. ah jërëjëf na la yàlla may jàmm. amiin amiin amiin. nga ne li nga ci gën a craindre moom mooy Pape Thiaw. waaw waaye du Alioune Cissé. ndax tey Pape Thiaw ni mu ñëwee ne salaamaaleykum. tey dina am droit imposer ne lii laa bëgg nu def ko Alioune Cissé ànd ca ak moom dégg naa ko dëgër bopp la. <laughs> bon euh, ñaar yàgg nañ nekk équipe nationale. non man li may di ndax Pape Thiaw dina ñëw ne lii laa bëgg. Alioune Cissé na ko waaw lii mooy d'accord. non je pense pas. ah <laughs> ba pare nga ne ba Pape Thiaw nga ciy keneen ah <laughs> sérieux. non dama dama dama dama ne Marche bi Pape Thiaw laa ci gën a xaar. ok parce que mon entraîneur Sarr mhm. après mu nekkoon ci staff bi. Mhm. ñu doog ko mais récemment. mais est-ce que am na fa baat. am na fa baat parce que gëddam dafa gën a yokk. ah. Mm-hmm. baax na. dina yokk. dëgg la man ci mm-hmm. Mm-hmm. ak adjoint la. Euh, ñaanu ko yàlla. mais bu ñu demoon ci match bi euh, Aliou Cissé ñu rouge ko. ñu yéeg kaw tribune. kon Pape Thiaw moom mooy gérer. effectivement donc gëddëm day gën a yokk. donc même bu ñu ruujul Aliou moom waroon a war ne. présence. Mm-hmm. won bu gisee dara loo xam ne le xelam. Mm-hmm. war na signaler mm-hmm. bu gisee loo xam ne dal na xelam. war na ko signaler aussi. moo tax ne lay dina xaar ci Allez, jërëjëf waaw Aliou tamit war a nekk un homme qui accepte les critiques. ah Aliou Cissé moom mel na <laughs> jërëjëf Serge merci beaucoup c'était un plaisir de t'avoir euh, au bout de la ligne hein. ça nous mm. fait toujours plaisir de vous avoir j'espère juste que vous avez ngi partager di différents programmes yi ñuy faral euh, di amale de Sport TV mais également au lire suñu articles yooyu ñuy faral di publier ci parce que nous avons une exclusivité c'est-à-dire la titularisation de Michael Faye aujourd'hui sa première titularisation en équipe nationale donc j'espère que vous a et que vous a ngi ci am euh, li alors modèle dellusiwaat ci Abdoulaye Ba Abdoulaye wane nañu ñaari sélectionneurs yi ah, ku ci nekk wax nga li nga xamante ne moom nga gis équipe bi waaye yow euh, suñu xoolee un peu bilan euh, Aliou Cissé Qui constance au bilan à l'UCC parce que nous nañu que euh, en match d'éliminatoire euh, Coupe d'Afrique des Nations moom musu ci perte amna nul certes amna a 19 victoires amna a 5 matchs nuls mais munu ci musu ci en 24 matchs donc on naka nga le bilan un peu euh, Aliou mais mi nga a un mot du sélectionneur national et que il est souvent très critiqué donc excuse-moi hein, je prends une dernière fois la personne qui est au bout de la ligne parce qu'il faut vraiment Abdoulaye Je développer après on a ligne bi pour me développer Salam alaikum.

Et tout d'abord, et puis j'ai dit que depuis le début de l'émission, mhm. j'entends pas le professeur. Oui. Ablaye Dabo. Oui. déglu ma ko ba léegi. waaw te moom laa toog di xaar di ko déglu. depuis huit heures maa ngi teg sama café di leen di ko xaar mais dégg ko mi ngi wax pourtant mi ngi wax. léegi damay ñëw ci euh, le coach Ablaye Waouh. Il a partie du système. 3-4-3. Mhm. Mhm. et à euh, Aliou en conférence de presse wax. il parle de trois secteurs. Mm. C'est ça, ça m'a bon, ça m'a doon réfléchir mais qu'est-ce qui se passe ah. après bi ma toogaatee xool le coach Abdoulaye euh, Ba wax boo les placements, oui trois il y a trois déjà trois attaquants qui sont là mm-hmm. donc c'est vrai que quand le coach Abdoulaye Ba me suis un système de ñuy de trois cinq ans. Mm-hmm. effectivement parce que maa ngi xoolaat match Sénégal yi ni parce que toujours il y a Ismaël Nassar, il y a Jacob ou Habib et, et Sadio Mané. Mm -hmm. Donc il y, a, il y, a déjà des trois attaquants d'agence ah, déjà 3, là. Donc ça veut dire que c'est plus 5, 3, 5, 3, 5, 2. Mm -hmm. Donc, donc faut faire un garçon déjà mhm. par rapport à l'UCC, le Mouitek. ak moom ko mhm. mhm. donc là il faudra nous voir exactement à Cissé lan lay football aussi. parce que di jaxasoo les ci xelu Sénégalais yi kon. bu fekkee on suit l' avec le coach lu parce que le métier def analyse toogaat xool ma ne non mais c' donc Lolo coach je sais pas euh, comme ça <laughs> merci beaucoup il a dit la clé du match dépendra de la situation du match. effectivement. coach. Mm-hmm. avec le professeur Abdoulaye mm-hmm. Merci. beaucoup, Aliou. Alors, euh, Abdoulaye Dengel, la question que je t'ai posée, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus Oui, par rapport à l'interrogation, euh, Aliou. Effectivement, si peut-être que je en 3, 5, 2, léger, les Mais ce dire, c'est ne joue pas en 3, 5, 2. si je joue en 3, 4, 3. Parce que tu de l'équipe tu vois nettement 3 mhm. centraux. 4 hein? mhm. militaires, de quatre trois attaquants. Mm-hmm. c' est un système boo xam ne c' parce que équipe yu bëri actuellement moom la ñuy football. Mm. boo xoolee Monaco moom lay football Lens moom lay football xam nga li ma la. Mm-hmm. boo xoolee ay équipe euh, Angleterre yu bëri moom la ñuy football. système bu. am na ñu am 5 3 2 am na am na au lieu de trois attaquants. il préfère troisième attaquant trois troisième attaquant bi. am na ñoo xam ne am na au lieu de aligner trois attaquants. Mhm. Ah, lance deux attaquants numéro neuf ci numéro sacrifier attaquant remplacer comme milieu ça devient un 3-5-2. Mhm. mais ci Aliou Cissé lu ñu depuis Sénégal depuis à c'est un 3-4-3 parce que tu vois trois attaquants. Mhm. mooy Mbaye wax Sadio euh, Ismaïla Sarr Jackson Habib Diallo si Jackson Légui nek fenn lay amé problème si tu si tu as une équipe qui joue avec euh, exemple un 4-4-2. Mhm. day am ñaar attaquant ci kaw. kon fofu du am problème parce que ñaari action yooyu mais nag boo équipe bu la ragal comme li ma yaakaar ni Burkina avec un seul attaquant buñ ñu ñun buñ ñuy attaquer ñun c'est pas normal ñu nek trois actions ci kanam ci ginnaaw. benn ak siyaag bi moom la Habib Diallo bëggoon a football contre Côte d'Ivoire ñoo a laa wax ñun buñ ñuy attaqué parce que les deux ñoom piston moom dañuy jouer comme latéral xam équipe su la ragalee wax day ci biir match bi laa wax dama ne ci biir match bi parce que moom dafa ne ça dépend de la situation buñ ñuy attaqué mhm. buñ ñuy attaqué mhm. les deux pistons ñoom dañuy dellu seen couloir nekk ay latéraux mhm. léegi nag bu dee équipe bi ngay footballal moom benn c'est pas intéressant ñu ñetti action yépp nek fofu mhm. ben action bi day génn jouer comme numéro 6. tu vois. Mhm. on devient 3 militaires wala 4 militaires ci digg bi Abdou yalla loolu la waroon def euh, contre Côte d'Ivoire il est toujours dans l'axe central. motax ñu nek 2 militaires Lamine Camara kese ak euh, Pape Matar sar mhm. ci digu terrain bi militaire Côte d'Ivoire bi. kii Broye Broye. clé match bi moo doon mën nga ne Habib Diallo génnal ci milieu terrain bi ci triangle lay doon. dafa yoon sax doo am gànn ngay si banc bi di jël Habib Diallo tax. de jeu bi muy expérimenté depuis Côte d'Ivoire mooy un 3 4 3. lay joué depuis éliminatoire Coupe Soudan euh, yooyu yëpp la euh, commencé. non son bilan éliminatoire de bilan kenn mënu wax dara. pas son bilan général suñu mënee jox euh, euh, liste kii fiche bi ñu des point sn defal c'est-à-dire en match éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations sur 24 matchs sur 24 matchs 19 victoires, 5 nuls 5 nuls oui on ne peut pas avoir mieux donc statistiquement c'est bon c'est bon Aliou Cissé amul Sénégal peut-être ñoom ñoo naqaree defanteel hmm. mais Aliou Cissé amul dara dara dara dara dara lu ko Sénégal war a wax bu rek bu rek ci résultat bu dee rek ci résultat la ñuy évaluer entraîneur mhm. te jàpp naa entraîneur doo ko évaluer ci dara mhm. lu dul ci résultat Aliou Cissé toogaayam bi mu fi toog depuis 9 ans c'est pas pour ses beaux yeux c'est pas que dafa neex waa fédération moo ou bien le ministère c'est parce qu'il fait des résultats Lolo ko fi toog Pour bu deful woon résultat bu ñu toogoon benn Coupe d'Afrique demuñu Coupe d'Afrique wala ñu toog premier tour Aliou Coupe du monde la def ah. trois heures la Angleterre doon Coupe d'Afrique bi pas dafa génn rek toog résultat yi wax nga sànq mbay wax nga sànq ñun ñun si on analyse résultat yi poste yi pour moi Amara Traoré Amara Traoré masu perte match éliminatoire yooyu ça ne veut rien dire Sénégal éliminatoire coach yi fi jaar yi masu ñu koy perte benn lañ ciy perte Aliou Cissé bu ñu ko éloge di tegal ay éloge éliminatoire benn ngay dajel Togo Ir arrêté leen nag yéen tamit. yaa ngi ñëw yaa ngi ñëw wax ci xalaat ay ngeen taxaw naa Aliou performance arrêté leen nag yéen coupe d'Afrique lañ koy jugé wala coupe du monde. mais attends attends que dis-tu toi du sénégalais qui dit qu'il a atteint ses limites. je ne suis pas d'accord. d'accord li attends un peu li may wax Mbaye rek mooy si on est là pour analyser on n'est pas des profanes. Hmm. non attends mais. Arma Traoré moom mais mais ah, ah, d'accord d'accord moo tax ma ne ko li muy wax sànq ba muy analyser sànq dafa ni

desam ci équipe nationale dañ koy remettre. jëlul PSA pour am coupe du monde. bu dee rek kuy waxal ci technique ngay wax ci tactique ngay wax xaw ma ne booy wax ci leneen. non si résultat laa la wax. mais si fama que ni ko gars yi waage. Amara Traoré yor na fi équipe bi trois la am coupe d'Afrique. yaa ngi ñëw Aliou Cissé Koto masul père éliminatoire benn yoon père mooy Côte d'Ivoire. c'est la première fois à la. à la dernière coupe d'Afrique, d'Afrique, le premier première l'UCI, la fédération j'ai a objectif atteindre la coupe du monde. bii passé bii passé. déedéet huitième bii passé. bii passé huitième de finale lañ ko wax fa la mooy nga naan huitième de de finale. première bi dañ ni ko première bi dañ ko bi dañ ni ko defal comme deux minutes. déedéet déedéet arrêté ne ça ne. man maa ngi suivre affaire rek bu ni ma c'est pas ça première bi bi muy toog si on est d'accord mais doo nekk champion d'Afrique ñëw naan moom. Mbaye moi je s'ouvre pour il faut soo ko mën a wax nga doon jël nga naan mooy tuuti sànq sama biir wax sama biir wax la sama biir wax dama koy wax benn affaire xam nga lii xam nga lan borom ma def nii xam nga lan borom ma def nii nit di wax nga koy dog ne kay sànq noonu nga ma doon def non sànq noonu nga ma doon def d'accord d'accord man daal la déglu nag de li ma koy wax Aliou Cissé benn échec la mën mën sa def ci équipe nationale ñu nekk objectif bi ci atteindre mooy seen à la dernière coupe d'Afrique des nations mhm. kese kon Aliou Cissé boo ko yu nga nit boo koy jugé ci liggéey bi ko jox boo koy jugé koy liggéey bi ko jox est-ce que la nga ko ci na ko wala def. waaw euh, Aliou Cissé na fi def. na na fi def cent ans. ah alors jërëjëf Abdoulaye Ba donc euh, professeur Abdoulaye Dabo alors dégg nga li nga xamante ne moom la Abdoulaye euh, Ba wax dégg Aliou Nef TV wax ci téléphone bi c'est-à-dire lui aussi bëgg na dégg lan nga xalaat euh, ci système bu Aliou Cissé di teg waaye wax nañu également le bilan de Aliou Cissé en phase match éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations en 24 matchs il a eu 19 victoires et 5 matchs nuls donc ci bilan beau il y a beaucoup de Sénégalais qui le critiquent en disant qu'il atteint ses limites Est-ce que vous pensez cela ou non Donc, Nakanga Khalat également, le coach Traoré, lui aussi, qui parle de l'équipe nationale du Sénégal en disant qu'il ne le craint pas. Ah, en fait, euh, bon, c'est un bilan <coughs> très, élogieux parce que un, entraîneur, il est, jugé sur la base des résultats de son palmarès et de son profil, c'est clair. quand les chiffres parlent en faveur de toi, bon, c'est tout à fait normal. Mais dans les faits, parfois, euh, il y a les faits qui viennent contredire un peu les chiffres. Lolo Sidinam. Parce que, en, fait, euh, quand tu arrives à un certain moment donné, l'une des il sait le niveau de jeu au-dessus. Mhm. C'est peut-être ça qui pose problème. Euh, entraîneur, parfois, qu'on dise que, bon, on se demande, est-ce que, est que, est que finalement le discours ne doit pas changer Est-ce que son discours est le même Est-ce qu'il doit <coughs> continuer Comment son discours peut changer euh, Comment dirais-je encore euh, Le destin d'une équipe ou mm. d'un match bon faut que koy très souvent par rapport à à ce qui se fait mais aujourd'hui allez euh, il y a une intersection c'est un peu plus euh, compliqué parce que lu l'équipe est en train de changer sans qu'on s'en rende compte Il y a un rajeunissement progressif C'est beaucoup <coughs> bu ko une constance dans les résultats ça peut poser problème donc vous, c'est un tournant un peu un peu compliqué pour lui bon mais sinon, dans le, les chiffres, c'est toujours, euh, les chiffres lui sont toujours favorables. Maintenant, on l'aime, ou on l'aime pas. Bon, c'est son style, quoi. Voilà. Euh, peut-être que le jour il va couper ses rastas, il va changer de look, mais pour l'instant, c'est le même. <laughs> Ça ne change pas beaucoup. <laughs> Les résultats sont les mêmes. Bon, le public n'a que... voilà, en plus de gagner, il maintenant avoir une équipe qui la rassure le jeu, une équipe euh, vraiment qui est, qui est, qui, rajeunie. Mhm. et il y a peu de rupture entre les deux. Parce que mhm. déjà, tu as vu, enfin, ma conviction est que Côte d'Ivoire, on, est, on devait finaliste, on le coup, mais minimum, on devait finaliste. Minimum, oui, on s'attendait tous à ça. Et là, et là c'est des, choix tactiques qui nous ont là-bas. Mhm. C'est de mauvais choix tactiques. Effectivement, de mauvais Parce choix. Parce que c'est pas sur un seul match Côte d'Ivoire, oui. sur l'ensemble du parcours. Nous, mm -hmm. Mais attendez, on est parti pour nous qualifier ou pour être premier Pour nous qualifier. Pour, être premier Non, pour nous, qualifier. Pour nous qualifier. Pour nous qualifier. Où ça non coupe d'Afrique bi. ah coupe d'Afrique troisième match nga teg sa équipe type. on est Pape Gueye qui nous a manqué. carton la jël. non xam nga dafa gaañu sax il est même. am na ko suñu nga xam ne dafa mel ni carton non non dafa gaañu foofu rek la Aliou Cissé defee erreur. dafa gaañu te wax naa ko def sa ay gëm-gëmam la ay gëm-gëmam la de. doye doye ay gëm-gëmam la. doye doye te wax naa ko fii ci plateau bi foofu rek la. non deful erreur foofu rek laay Coupe d'Afrique ah. woon warul woon ay Pape Gueye yooyu parce que y avait pas d'importance foofu man nee naa ko foofu mënuma ko baal parce que moo ñu arrivé ci match boobu. c'était une erreur de xam dugal ci xelu nit ñi amul fenn ay Guinée waruñu doon fan lañ teg loolu. non ça veut rien dire donc je veux dire compétition mais qui gagner quel que soit quel que soit euh, le caractère élogieux de chiffre des fois, ay moments y a des choix Bayo y a des choix forts hmm. à des moments précis quel que soit tes chiffres boo raté ce ce choix yooyu. <laughs> raté sa carrière que coach. dafay jaxase mm. donc je pense que euh, c'est ce qu'il a compris d'ailleurs. Mm. le entraîneur bi ñu tu tu as l'impression que c'est euh, la pression est beaucoup plus sur Aliou que sur le coach. Effectivement. Que dans, que dans le langage, dans, la, dans, dans le, visage comme ça. Voilà, il est un peu plus relax. Allez. Aliou a l'air d'être crispé. Pourquoi Pour quelle raison Obligation tu tu, de résultat. Voilà. Donc, obligation, de, résultat, mais favori naturel aussi. Favori naturel. Voilà, tu n'es pas le vainqueur systématique, mais tu es un favori naturel. Mm. Donc, on un préjugé favorable, mm. tu joues chez toi en plus. Mm. Donc, je pense que mon voilà. Mais euh, bon, c'est son style aussi. Euh, ça, c'est du Ali, voilà. C'est du Ali ou c'est du Vatanguer, c'est du Vatou, quoi. Voilà, donc lui, il est comme ça, il, n'est met pas de gants, et puis c'est bon. Peut-être aussi, c'est ça qui a toujours fait ça. Mais ce que je veux dire, moi, tout simplement, on va vers un match piège. Attention, hmm. on va vers un match hmm. piège. Hmm. Parce que gagner un match au Khavantene, le rappelait ça, en éliminatoire de Coupe du Monde, on a fait vraiment. Je sais, je sais. Avec un programme compliqué pour les phases Ah oui. Avec ah, un programme compliqué parce que ah, RDC, Soudan. Voilà. Donc, le lieu, je comprends lui un tout petit peu. Il peut avoir tout ça en tête parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation de résultat. Ah Donc, marche piège, il faut gagner. il faut un mental très fort. Et on reçoit chez nous surtout, muy le facteur Bohan. aussi ça pose ça pèse sur la tête. Oui, ma Abdoulaye très rapidement après ma ñëw ci ma ñëw ci bala ma salam alaikum. Allô Allô Oui, allô Oui, salam alaykoum. maaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay nuyu noo tudd ak foo ñu woowee. Amdi Moustapha maa ngi di woowee Kër Massar. ñu ngi nuyu waa Kër Massar yëpp Amdi Moustapha mu baax mi alors da nga bëggoon bokk ci émission bi. waaw dama bëggoon participer tuuti am question yi ma laajte. ayca. bon dama doon laaj ci match bi. waaw. Euh, équipe nationale dama constaté depuis de derniers matchs yi. oui. Euh, public bi ñëwatul quoi stade. ndax manque d'amour la envers mhm. l'équipe nationale ak jeu bi Aliou Cissé di pratiquer mhm. man je de Aliou Cissé mhm. parce que Sénégal avant Aliou Cissé équipe nationale bi bëri woon na pëccaxoo y avait pas cet respect envers l'équipe nationale ñu ñëw fii sénégalais nag dafa gaaw fàtte Aliou Cissé fi ñu jëlee indi stabilité ci équipe bi indi ñu kaan li ñu defal ñooñu yëpp ñun fàtte nañ ko Mm. pour benn match bu ñu ñàkk contre Côte d'Ivoire. depuis boobu. la mm-hmm. plupart des Sénégalais. Mm-hmm. da ngay constater dañu am manque d'amour envers l'équipe dañ naan Aliou Cissé na fi jógee na fi jógee mais bu fi jógee kan mooy ñëw dañuy jëm jëli benn tubaab. Mm-hmm. alors que ñu am suñu doomu réew yu am xam-xam fii mën a mën a mën a gérer lool. deuxième point bi may laaj waat mooy le départ de Rédi Boga. sachant que kooku moo nekk mentor Aliou Cissé depuis des années. ndax Pape xew mën na combler loolu. Mhm. ndax est-ce que duñ jëliwaat daaboo bi nekkoon Azam jóge na fa récemment est-ce que duñ ko boole renfort moom ak Youssouf moom ak Pape Thiaw ak ñu boole trio boobu équipe nationale. Mhm. loolu laa rek laa doon laaj quoi. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay gërëm bu baax a baax am Amdy Moustapha depuis Kër Massar alors. pour euh, le premier point je pense que soo delluwaatee tout émission on en a longuement parlé par rapport à accessibilité le euh, découragement peut-être on peut dire de des Sénégalais envers leur équipe nationale donc euh, pour aussi jot point c'est-à-dire départ Régis Bogar aussi professeur Abdoulaye donc Euh, bala ma ñew ci yow damay ñew ci euh, Abdoulaye Ba mi nga xamantene mo doon waaj jël euh, tout à l'heure amna ben cadeau bu mu ci bëggon sànni très rapidement wax c'est par rapport ci chiffre yi c'est combien de buts marqués ci ay chiffres sur les buts marqués c'est 47 buts encaissés 10 10 10 buts encaissés 47 marqués 10 c'est un entraîneur

c'est ah, ça le Il est Ah, ah oui, c'est clair. mais il est intérimaire. Il est attends, attends. il n'est pas ah, mais Serigne il faut faire attention s'il fait des résultats hyper non je suis d'accord un intérimaire peut être confirmé un intérimaire peut être confirmé. on a vu avec l'exemple de la intérimaire moi il ma la Côte d'Ivoire du woon Moi, il autant que Aliou Cissé am la pression ci hmm. ci ci ay épaules. Hmm. autant que Draman aussi. Ah. parce que c'est sur ces mais il le montre pas pourtant. il paraît plus serein que hmm. Aliou Cissé. Il paraît, oui. Par rapport à la conférence de presse, tu le vois. Il a l'air plus détendu. Même le professeur l'a dit tout de suite, il a l'air plus détendu. Cissé a, voilà. Cissé avait l'air d'être, euh, de porter ses gants et d'être, euh, voilà. C'est pas mauvais pour Aliou. C'est Sincèrement, pour revenir à Aliou Cissé, si une fédération embauche un entraîneur, c'est pour des résultats. Oui. C'est pas pour un beau jeu. Non. C'est pas ça. Allez, c'est a fait de beaux résultats ces deux dernières années. mais bien sûr. ban résultat la def. léegi yow yaa ngi ñëw eh, merci coach merci coach Abdoulaye Ba léegi Serigne Mbaye Diop éliminatoire coupe du monde deux nga jël derrière Soudan. Serigne Mbaye Diop bii paase nga nuyu la RDC. nga dem Côte d'Ivoire door la. waaw léegi déglu ma ma jox la kàddu war dàqee entraînement. déglu ma ma jox la kàddu kenn du ko évaluer dañuy ba d'accord xaaral ma jël conducteur bi. d'accord ah. léegi pour ma jox la sa conducteur. Hmm. Ah. Laye est-ce que ki ci ligne bi mi ngi fi ba tey ou pas. balaa ma kaa jox Serigne Mbaye Diop su dee mi ngi ci ligne bi ngeen jox ma ko très rapidement alors dem na Serigne Baye Diop dengal li ñaari entraîneur yi wax waaye dégg gis nga également bilan wu ah. euh, ki nga xamante ne mooy Aliou Cissé en match éliminatoire yow sa gis-gis xam naa ni bokkul ak bu Abdoulaye Ba ban gis-gis nga bokkul ak sénégalais yu bare hmm. déjà kii fi jógee léegi moom bu ñuy imposé daaba moom il daf ñu yàq wala daaba ñu dàq azam dàq kar tëngeej xawm arrêtons di promouvoir la médiocrité waxuma daaba waru fi ñëw de mais daaba prouvé tul depuis mu bàyyi junior yi y' a beaucoup de techniciens nekk Sénégal fii ay ñoom ki nekkoon daaw tëngee jël championnat bi am na ku nekk Pikine am na ku nekk Jaraaf maanaam. booy promouvoir sax promouvoir dàqu daabo dàqu daabo. waaw Cheikh Gueye laay wax. man daa waxuma da ngay cible ay nit ne dem jox da ngay jëm jël tubaab. mais dàqu a Azam a fait ko war si la may wax man. li may wax soxla ma confort confort. allez-y donc xaaral gis nga éliminatoire san chiffres là. ça ne veut rien dire. si waa déglu nag waa déglu nag moo tax ma wax la loolu. Amara Traoré demal nga génne éliminatoire ak résultat moo gën a baax. wala il est passé en coupe d'Afrique avec trois défaites. waaw Aliou dem coupe d'Afrique ñu door ko. dama la bu dee fii dama ko dama trois défaites. waaye da ngay déglu nag premier tour toog premier tour devant la Zambie. Guinée Équatoriale Zambie jël coupe bi Zambie jël coupe bi. non non ah dama ne. yow li nga xamoon waaw ah, dama ne 2012 am na dama ne ak seen capitaine. Kassongo trois défaites la def waaye trois défaites Sénégal Équatorial moo ko dóor soo paree rek ma jël sama parole ku nekk da ko dóor deux un dama la ko xool waaye waxuma soo bëggee di dog li may nit ñi dootuñu xam la may wax quand li may wax mooy demal nga xool Peter Bruno Sini Peter Siniga depuis 2000 coach yi ñu fi teg yëpp éliminatoire yu baax la ñuy bàyyi ma waay yow tamit. la dara naan Aliou Cissé éliminatoire am na fi ay défaite daf ko dugalul bàyyi sa yi ngay def Amara Traoré demal nga xool éliminatoire kese laa la wax kenn gañewu ko li ma la wax du dañ demal nga xool Peter Schnittger demal nga xool Bruno Metsu bu dee éliminatoire kese ay benn défaite benn les Sénégal daje Sénégal yan lay daje éliminatoire ay Gambie ay Bénin ay Sierra Leone waaye loolu bu fi nekkee boo de Sénégal phase finale la am da ngay déglu nag Sénégal dem fi coupe du monde Angleterre la mi nekk lu tax dàqu ñu Aliou Cissé xam nga man nañu bàyyi di promouvoir entraîneur moment la ñuy jugé nit. Gareth Southgate Aliou Cissé gën ko éloger ba débat. si waaw non non Aliou Cissé ya champion d'Afrique. waay tey jërëjëf saa waay Europe lu mu gagné la. man il n'a gagné gagné en Europe. ay da ngay nangu ah, dégg bàyyi li Santos Ah. bañ ko war a dàq dàq ñu dàq ba mu am nga Sénégal dañu comme les Leparois ay biiru picc lañ yor dañuy lekk tuuti rek suur jël naa ko def rek léegi kii doon ba laal day am immunité ah, loolu ngay dekk di defar loolu nga way wax depuis son retour muy ko di amal nga dekk di wax sa ba day xamal nga dekk di wax hmm. Aliou jël na coupe d'Afrique waxu hmm. amateur yi nga xamuñu football hmm. waratoo ko daal loolu nga dekk di wax ah bu dee résultat coupe d'Afrique bi passé atteindre ko doo ko dàq kenn du ko dàq lu tax moo tax moo tax ñu ngi tano ne déjà crise crise lañu am si côté staff technique bi loolu li ba waaye crise bi nga xamante ne dafa démission. ban crise loolu crise sa système sa capitaine de bord di critiquer sa système léegi Sadio Mané Diop xaaral xaaral xaaral déglu ma dama dama bëgg ñu wàññi tempo bi pour wàññi tempo bi je te conseille nga naan Kéran ma jël ki ci bi après nga wàññi waat tempo bi parce que le volume est élevé te da ngeen fàtte ne da ngeen takk micro da ngeen takk ñu jël ki ci bi alors

spécial Coupe d'Afrique des Nations éliminatoire Thaïlande. donc suñu match ñi ngi koy amal ci stade Abdoulaye Wade mm-hmm. Mm-hmm. à partir de 19h donc équipe nationale mi ngi fa Burkina Faso tey donc ñu ne yéene jouer tey donc ci match bobu nak euh, lañu nek di débattre ni en ce moment mm. légui ci débattre boobu euh, Serigne Baye Diop daf ma naroon jox li nga xamantene ne moo di Aliou Cissé par rapport ak match éliminatoire yi mu jot a joué yëpp gis nañu que 24 matchs la mm. il a eu 19 euh, victoires 5 nuls amna ci 47 buts yi nga xamantene 47 yi nga xamantene marqué nako 10 buts yu mu encaissé té ci 10 buts yu mu encaissé yoy ma jaaraale fa jël ci ligne bi bala maa jox Serigne Baye Diop parce que il faut mu calmé wu ba pare allo salaamaaleykum Allô Allez, parti. Allô Allô Allô, oui Oui, salam alaikum. aleykum salam wa rahmatulah. waaw Aliou. li entraîneur Burkina bi wax. Mhm. xam nga def nañu situation ci Aliou Cissé ak tempérament ak kii nu mu dogee sereen yi. Mhm. donc loolu la ñu bëgg ñu waxtaanee ak tuuti maintenant dafa am deux choses dans la vie. -hmm. -hmm. gis nga statistique kenn mënu ko effacer ci àdduna.

tout est positif. Mm-hmm. parce que tous les contrats qu'il a signés il lu a plus moi, ko respecté te daf ci nekk. Mm-hmm. depuis que je suis. suivre. Mm-hmm. luñ koy critiquer critiques ba ci man moi j'ai imposer peut-être que dañu dem ba Sadio Mané wax ci. dañu ban ba di ci c'est ça. aujourd'hui le prof coach Abdoulaye Ba a donné un système man bi ma toogaatee toogaat xool xoolaat trois lettres de mais mais c'est vrai on, à l'issue, nous parle de 3-5-2, mais on voit 3-4-3. Donc tout ça, nous devons le décortiquer. Mm-hmm. Mais vous avez Alice moi je suis à la Pédéhali, nous sommes l'accompagner parce qu'il a fait une équipe nationale Sénégal. Mm. Peut-être que nous avons groupes nous xool peut être lu nous ñu ngay parce que bu équipe bi yàqu ñu ñëpp la donc ça veut dire que aujourd'hui damay wax toujours j'ai peur mais décortiquons aujourd'hui mhm. lan la ñu war a jàngat ci match bi ak lan la Aliou Cissé war a teg pour ñu gagné match bi. Mhm. et que maanaam public bi ñëwaat. parce que le Sénégal vit événementiel. équipe bi buy doxatul deux fois comme ñu amee problème ñu bëri dañu toog seen kër. Mhm. même bu paas bi sori. bu ko affaire yi commencé une heure ñëpp ñëwaat stade. donc loolu laa doon comme contribution rek. ñu dégluwante je pense que yéen a bokk li ngeen di wax. mais il faut juste enlever la personne d'Aliou Cissé. et ñu dégg bu baax. waaw ah, jaajëf merci beaucoup. jërëjëf Aliou ñu ngi lay gërëm bu baax a baax euh, parce que. émission bi normalement 11h la waroon jeex bi kooku édition spéciale la mhm. euh, dañu dañu baral tout rek euh, dañu bal ñu baral tout rek jëlaat euh, waxtu touti parce que amna ño ñoo ñi nga bëgg a dugg depuis sank ci ah. ligne bi ma téyé len parce que dama bëgg ñi tamit ñuy décortiquer les bilans les statistiques le le les probables 11 donc yooyu bëgg na ñi décortiquer ko motax il faut forcément may may may des fois téyé ligne bi mais vous êtes vous faites partie de la de l'émission donc mën ngeen woote ñu mën leen bàyyi ngeen dugg je rappelle juste que émission tay bi tamit dinañ ko reproduire lundi mhm. lundi dinañ defaat benen édition spécial spécial parce que pas match bien encore dañu dem Malawi équipe déjà sur place de suñu déjà eu ñom bay ak Bakary Cissé ak ki nga délégation bi dem euh, Malawi euh, li prochain euh, match équipe nationale du Sénégal donc ma jël ci ligne bi très rapidement ma ñëwaat ci yow Serigne Diop allô ñu ngi ci ligne bi de allo euh, bu buuxante ci ligne bi nag dafay jafé mo tax euh, des fois duñu ñu déggante euh, doo mën a jël nit yi allo salaamaaleykum allo. oui allo. oui salaamaaleykum. tey da nga teel mo tax yàgg naa ci ligne bi. waaw je vais bien euh une voix bu rare hein? Raoul c'est bien lui. Waouh, raw yow dag ñoo bayyi, gis naa ni temps yi moom dag ñoo teggi. Non, non, même pas, même pas. Même wow. pas. Mais je vous suis hein, à distance. Oui, euh, Raoul, yow, yow ce, ce, ce, point de vue daf may neex ci ci ci ci euh, bi parce que en tant que coach comme Abdoulaye Ba bëgg naa dire aussi euh, naka nga xalaatee euh, équipe bu Aliou Cissé bi surtout que Desport.sn wax nañu ci titularisation ou Ngor Faye donc moom moo war a sa première titularisation aujourd'hui naka nga gisee listu Aliou Cissé bi en général ak match tay bi ñan la Aliou Cissé war a mën Euh, merci ah Marceline maa ngi nuyu de passage euh, Mbaye Ablaye ak euh, doyen Dabo bi nga xamante ni j'ai pas eu la chance de rencontrer ko nii mais maa ngi koy suivre